tim bi quoi tim man man day waale Pape Modou Fall rek su ma jëwriñ bi. may ñu lool may ñu lool rek. Ah, parce que c'est normal c'est interactif oui ah, euh, par rapport ak l'affaire Ndiaga Diouf bien sûr. Bart xamoon na ne lii du ci am li mu bëgg koo xam ne xës nañ laa àtte ba nga tëj juróom-benn weeru kaso ci deux ans yi nga xam ne tëj nañ la ko boo ñaanee appel yow yaa dem ñaani appel yaa ne da ngaa d'accord ci li la àtte. xanaa konte tey bu ko verdi si cour suprême joxoon dëgg juróom benn weeru kasi mu tëdd xanaa kon dañ ko koy delloowaat am na loo xam ne stratégie de communication kese la wax na ci ne conséquence bi mu ciy bañ mooy mu perte ndombol tànk député parce que mun naa conséquence Khalifa Sall ci parrainage député Fall Abdou la wax fii parti yi wala coalition yee am treize députés assemblée kenn du ci dugal parrainage citoyen kenn ci ñoom du ko ci dugal dofuñu duñu jël risque bi xalaatuñu ko te ba ñuy toog ci dialogue bi de ko waxtaane ba dugal ci parrainage député ñoom ñëpp xamoon nañ ne seen avantage lay doon parce que bu ñu wéeru woon ci parrainage citoyen musiba imagine yu def tirage au sort le parti au pouvoir jël ndaare ci tirage au sort fan la jëm kooku day foruklo ñëpp xam nañu ci treize députés yi li ñuy wéeru ci mais Bart dafa wax ne du fay amende bi ñu ko amandé mooy vingt cinq millions mais bu fekkee fay ko mais dafa am ay procédure judiciaire yoo xam ne moo wax ne bu ñu la attee daan la nga war a fay nangam te fayoo ko mais tribunal day envoyé huissier xam nañ Bart bi ñu koy mun a fekki constaté la xam ne yor na ko ci valeur vingt millions wala vingt cinq millions ñu pere ko ci moom jox ko ay mbokk ñi nga xam ne ñoom la daan ñoo ñoo ñoom la faat seen doom na loo xam ne aussi il faut qu'on revienne à mais les politiciens dañ yaakaar ñoom justice bi ñoom dañ koy yor di ko manipuler ni mu leen neexee du ma wuyu ji ma àttee aussi buñ joxee verdict d'accordu ma ko. Mm-hmm. mais boo xoolee ñi koy ci réew mi yëpp bu ñu baree ba bari mu tañu trente personnes wala vingt wala ñoom dañoo gën ki nga ne moo ne ci kaso ba di xaar ku ko àtte. Mm-hmm. y de six mille détenus ci prison yi di xaar ku leen suñ prison yi fees na diyen ñi nga xam ne seen doole néew na amuñu sax nu ñu mën a fay avocat. mais après nga ñëw benn politicien wala ñaar wala ñett yoo xam ne ñoom dañuy jël justice bi rek. di ko tam-tamee di ko tamiser nu mu leen neexee à leur propre guise. war a bone war a wone un bon exemple comme li président Lamine Gueye wax mais bu fekkoonte ne ñoom noonu la ñuy jàkkalu justice di bañ a wuyu ji wala di défier. Euh, ay verdict justice bu fekkoon Sénégal yëpp amee nañ doole noonu kon ministre de la justice. le pouvoir judiciaire dañ koy éliminer carrément d'office ci dëkk bi su boobaa on sera dans un pays boo xam ne armée mexicaine lay nekk wala mu nekk benn jungle wala ay gladiateurs nous sommes dans un état civilisé dans une république où que les autorités yi koy incarner pour diriger ko war nañu am teggin ak yar ak worma à l'endroit des sénégalais yi nga xamante ne ñoom la ñu yaakaar ne ñoom la bëgg a jiite teggin gi ci ñoom la war a njëkkee nangu décision administrative war a njëkkee exécuté ko ci ñoom la war ñëpp a koy roy ci ñoom. mais tey bu fekkee ñoom am nañ parrainage citoyen mm-hmm. bu fekkee dañ ko door a dugal man je crois que ça n'aura aucun effet par rapport ak parrainage député bu ñu dugalee parrainage député aussi le 26 le cinq à 0 heure mooy nekk dernier délai de dépôt des listes de parrainage. Mm-hmm. mais ñoom fii ak le 25 mënuñu dugal seen parrainage député wala bu fekkente ne ma laaj question. bu fekkee dañu dugal seen parrainage député ba noppi le vingt cinq ba mu jàll mhm. léegi moom mu ñàkk ndombal tànk député mhm. xanaa kon dañuy def moins un ci treize députés yi yu Khalifa Sall mooy bosu Barthélemy Dias ndax procédure judi euh, électorale bi mhm. loolu la wax xam nga fi may waxee bu fekkee dugal nañ le seen parrainage député le vingt cinq à zéro heure ñu dem ba le cinq janvier ñu nekkat Barthélemy Dias nekk nekkatul député kon dañuy rek dañuy revenir en arrière pour génne benn député bu Barthélémy Dias ci parrainage Khalifa après Khalifa dem forclos loolu aussi il faut que les juristes mhm. wala les politiciens wala code ah, électoral bi leeral ñu bien sûr alors euh, euh, euh, Mohamed hmm? les décisions de justice hmm? bu baax suñu Modou Modou bi Portugal la demoon Portugal ak France dañ ko war a appliquer parce que fan yi yëpp moom la wax Euh, du côté de la euh, maanaam de l'État ak ak bànqaasam mais également ñi nga xamante ne ay justiciable lañu dogal bu jóg wala bu ñu taxawalee procès du ma wuyu ci wala dogal bu jóg duma ko jëfee est-ce que du nekk ay précédent dangereux aujourd'hui pour pour le Sénégal mais bien sûr Fatou wax nga ko ay précédent dangereux ci ci ci Sénégal yëpp et puis il faut que gars xam ne nul n'est au-dessus de la loi nekkal ministre nekkal député nekkal loo mënti nekk amal influence mënti am ci mhm. àdduna yoon yoon la rek mhm. man Mouhamed citoyen simple ni may amee jafe-jafe ci yoon ñu ñu may teg ci yoon yow Fatou Abdou noonu kazalika keneen ak keneen. Mhm. mais ñi fi nekk di jiite di nu waruñu jàpp seen bopp comme ay. Ah, euh, roi wala ren wala ñor ay royaume non ay justiciable lañu. dañuy def erreur dañu war a tontu yoon. sinon bu ñu ko defee noonu ñëpp dinañ xataraayu xeex. ngir ngir di nguuru jouissance boobu ñuy wax et puis kenn du xam lan la donc il faut que du du côté ni nga ko waxee pouvoir ak opposition ku ci nekk bu la yoon tegee daan ne leen nii ak ni ak nii la demee nga respecté ko léegi nag pour revenir ci affaire euh, Barthélémy Dias bi Fatou Abdou man li may njëkk a ñaawlu mooy si dossier de dossier yi nga xamante ni dafay yàgg affaire Ndiaga Diouf bi c'est en 2011. waaw décembre bi la woon waxtu wi période mais mais loolu dafa yàgg. oui c'est onse boobu boobu nguur gi fi nekk sax jëlagul nguur jëlagul. Mhm. jëlagul euh, jëlagul jëlagul pouvoir. mais 2011 mbir yi am on se ñun ñëpp fii la ñu fekk mais ñuy bàyyi ba yegg si tey pour mun ko vider mais kanam même il faut que aussi mbir yi ñu di ko euh, def. ci temps bi mu laaj ci temps bu mu waree. mais toog ba heure bi. ah waxee ñu ne le temps de la. la le temps de ah, eh, loolu sax man wax yooyu noonu président Lamine Gueye mais ah. da nga fiy gis ay dossiers yi nga xamante ne nii dañ koy enrôler vite. fët fët ñu régler ko mu ah. féete boor. mais loolu tamit il faut que ñu il faut que ñu xool ko maintenant loolu laay njëkk a ñaawlu mooy affaire bi yàgg na 2011 il faut penser à la famille de Ndiaga Diouf aussi aussi yi def ay sorties yu bari. même Barthélémy Diaz est-ce que du épée bu ñu teg ci kaw boppam mais loolu laa maanaam yow saa bu ñu bëggee nga nooyal nga mais loolu moo dul yoon bëgg évacuer ah, mais loolu loolu moo dul yoon justice bi warul doxee noonu et je pense que ne bu ñuy décrier la justice Sénégal du lépp a bon en une fois am na ci euh, yu nga xamante ni nii aussi il faut que ñu ñu ñu maanaam ñu di ko wax ñu ngi fii nekk di def seen liggéey ni mu waree ci anam gu nga xamante ni ñëpp dañ ci gis seen bopp mm. mais am na ci ay mbir yi xew day day may sénégalais lambda bi di apprécier des fois mu apprécier négativement que gis na benn mbir bu taxaw justice peut-être am na nu mu ci doxalee. Mhm. mais ñu ŋàññi ko mais c'est c'est durant ces ces douze ans yi fi président Macky Sall nekk par exemple xoolal combien de fa et même au-delà boo delloo ginnaaw xoolal ñaata yoon lañ fi toog ne euh, justice bi justice bi justice bi justice bi. Mhm. mais il faut que ñoom itam ñu ñu xoolaat bu baax a baax euh, maanaam doxalin wi ci wàll woowu mbir yi ñu di ko jox délai bu mu mën ñu maanaam ñu di ko jox euh, euh, fulla ak fayda di ko di ko vider ñu jàll ci leneen xam nga mbiri faatu Sénégal je pense que ne war nañ toll fu nga xamante ne ni war nañu bàyyi di wax diw ak diw am nañu procès diw ak diw am nañu jafe-jafe ci wàll yoon diw ak mhm. diw attention ne nag sénégal yëpp média bi yëpp ñun ñu nekk saa ñu xëyee procès ndàngam procès nangam. procès mais mais mais mais mais ce pays là dafa laaj liggéey. xam naa di ngeen ma reetaan mais boo gé soo génnee soo génnee soo génnee ci nga xam ne soo génnee da ngay xam ne Sénégal jar na cest à ay détails ci la ñuy la ñuy la ñuy tardeel suñu bopp mm-hmm. ay ay procès ñaar mais procès nit ak nit war nañ ko mën a sax def ñu bañ ko médiatiser kenn du yëg sax diw ak diw amoon nañ procès. mais jël jël tout le pays. a ay procès Sarkozy mais mais mais nag fii nag moom. il faut que ñu góorgóorlu ci kanam gis na actualité bi sax mais mbirum Barthélémy Dias bi depuis 2011 dafa yàgg. ça devait être vidé depuis très très longtemps maintenant nag Barthélémy Dias moom moom moom. xam naa ne su le plan politique boo ko doon jàngat moom meereem bi ba kanam la ci teg. Mhm. jàpp na ne mbir yëpp. bañ ko tàmbalee waatee ak euh, donte moo moom moo. dox moom moo yóbbu yóbbu affaire bi. mais mais sax dialogue bi. moom moo def appel sax moom. jàppoon na ne peut-être à la àll lii yëpp tournure yu muy am mooy maireem bi dina ko ñàkk te ni nga ko waxee maireem bii ba kanam la ci teg ku ko nar a ku ko nar a xaj sur le plan politique du caaxaan mën na demee neneen mais li am solo mooy li président wax sànq côté député yi mhm. te nga te nga rappelé ko mhm. effectivement li nga wax loolu la mhm. suñu problème ñun ñëpp mooy euh, bu ñu ko bu pertee porte porte euh, poste député aujourd'hui Khalifa Sall jàllul parrainage euh,